fàllu fàllum yàlla la rek ku yàlla faale la ndax bu ñu demee ba Serigne Touba di wax naan ko yi bu la yàlla wàccewul woon feneen man mu wuti la loolu dafa matal lépp kenn mënta wax dara ci sëñ fàllu lu dul sant ak ngërëm di ñaan doomam yi ñu yàgg fi lool te di ñaan sëñ Abo Mbacke yàlla na fi yàgg te wér. bés bi maa gën lool xanaa di di ko rafetlu di ñaan yàlla di ko teewaay ati ati ati at di ñaan li ñu fiy sàkkul lépp ci lu baax yàlla nañ ko yàlla defal ci barke borom bés ñëw ziyaare si euh, def lu ñu daan def rek suñ ñëwee ziyaar julli tisbaar dem xaar après ñibbi. ku ñëw moom ziyaar Cheikh Ahmed Fadel Mbacké amul dara loo ci jëlee lu dul ngëneel doole sant tey ñaan di ko ñaanal moom bala ñoo wax dara di ñaan Cheikh Ahmed Fadel Mbacké li wékku ci kawam ak lii nga xamante ni moom la ndongo yeeg taalibe yëpp yaakaar yal na ko yàlla mottali te mu dese barke ba. loolu lañ koy ñaanal ba pare doog a jublu waaye ñun Cheikh Fallou dañuy tàllal suñu loxo rek laaj ko mu jox ñu. fekkew ma jaar jaaram mais li ma dégg ci moom bëri na déjà man tey tawat moo ma indi te comme moom nee na moom tawat moom bu ne tawat bàyyi jiw tawat bàyyi jiw nee naa ko nag na wax tawat bu bàyyi ma man bàyyi naa tawat. <laughs> jamono bii may ñëw fii damaa wéradi te xam naa ne mënu ma woon a bañ a ñëw waaye moom moo ma woowal boppam bëgg maa dimbale moo tax bi ma ñëwee man jàpp naa ne bu fi jógee dara dootuma dal barki Cheikhul Khadim. ah déjà bu duggee biir Touba rek déjà man. sama lepp day day day changer ndax dafa am lo xam suma dug su auto bi duggee Touba bu ma koy yëg du ko tay donc yalla mom mo def loolu ci donc dama Seigne Touba ak njabootam mo ñu wax xaajum rasul yalla mom mo def man dama leen bëgg te yàlla rek tax donc Touba su ma fay dugg eh, li may wax ni du Touba lay dugg man duma ko xam damay jékki-jékki am luma yek sama yaram ma xam ne dugg Touba. ñow na fo xamanteni man damay ñaan yalla aduna ak alakhirah mu bok fi ci barke Seigne Touba di barke borom bis bi. waaw man maa ngi bàyyeekoo Dakar nag ñëw si